bëre Thiès war a bëre bi nga xamante ni bii moom la Assane Ndiaye bu Baol production organisé ambulance war cee bëre ñu war a yaatal bokk open presse fii waaye di ñaan ba ci merci beaucoup dañuy ñaan wax ambulance. lu may wax ambulance mooy ñaanal ko yàlla may ko wér ak kattan ak man ba bu jour baare ñu daan jël bu set wécc ba amul fenn ba amul benn wérante. wulli est-ce que yomb naa daan. bañaa yomba daan ñun duñu ay ragal ñun duñu ay ragal duñu dellu gannaaw ñun ñooy waa Thiès di waa taax kaw amul arrière am ba arrière ca kanam rek ca kaw. sëñ bi maa ngi lay ziar. yàlla na nga ziar. tey ñu ngi Thiès. seen doom war a bëri samedi ak wulli bu bawal actuellement est ce que seen doom pare na pour daan wulli. ah mais oui ambulance pare na ndam rek li war ci combat bi def nañ ko booy bi dem na mbuur lëlu na lëlu na ay weer na technique wàññi na poids donc lépp lu ci waroon sur le plan technique def nañ ko sur le plan mystique def nañ ko donc ndam rek lañ mën ci combat bi ça c'est kontaan ci yow. merci maa gën a kontaan. Por bonita. man du ma ragal barki sëriñ Tuubaa du ma ragal leen ziar rek ak fu ngeen mën a nekk a bëre samedi le 13 fële stadium Iba Mar xam nga ak Boy Niang bii defe naa si bëre mbër maa ngi lay bëggee waaw ñu ngi ziar bu baax maa yaa ngi am jàmm waaw sant alhamdulilah yow koy bëreel ci bés boobu man bu Bawol ñoo a bëre carrière waaw maa ngi ñaanal Modou Xolo mi nga xamante ne moo fi jógee yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana naqar boobu nag tiis nañu trop ndax mënuñu ci dara mais borom borom bi moo soxla. waaw borom bi moom bu soxlaa keneen ku soxla moom da ngay ñàkk mais sant yàlla rek di ko ñaanal fi mu tëdd gënal ko fi mu jógee ci barke Seydina sallallahu alayhi wasallam di ñaanal Matar mii nag ndam ak man ndam lu leer nañ muy ñaari ndam ñu jël ko yóbbu ko Thiès. am na solo waaw kon léegi bawal contre Thiès lay doon daa mel ni. Kajoor ak bawal la boo kandi mooy sax mu doon tàngiree mais Matar maa lay bëggee wala ambulance. maa ngi lay dolli bëggee. ci yaa ngi am jàmm. maa bu baax waaw. gis naa la ngay yëngu di yëngal de. waaw da xam nga lu tax. waaw ambulance bu njëkk. ak léegi. waaw bu njëkk ba laa bëgg indiwaat. te xam ne man du ma ragal. teeka ragal dëkku fi. barki borom Touba loolu laa la wax. avant tout di sant Mourou Anta Gueye mii. di sant sama doomu nday mii. est-ce que ngi dégg. kii aw ma leen lu may wax moom xam nga lan laa sekk ak moom. bu xeexee mu duma ko daan ko bu bëree ma jàpp ko daan ko. loolu laa gëm te incha allah koy def. wulli bëri naw fit dew ambulance. fii la toog. yéen ñaar ko fit. nañu boole teg ñu si néeg man ak moom mu xool kuy génn ku daw. pourtant moom nee na démb yow yaa doon daw avance bi fu ne dugg nga fa ngeen di fexe ngeen bañ nga bëree nga wiri ba fa. ma jël wulli de mais wulli de di sama yoonu sax làmb. mais mbaa wóor na loolu nga def. barki borom Touba dama koy daan. bul waxati li yow. du du déglu ma la du moo may téye te incha allah waa Thiès maa leen di dig ndam si kàttanu yàlla suñu boroom nooy daan nooy daane wuli de yow xeex wala bëre. déglu ma lu suñu borom wax rek. nu mu bëggee rek nu mu bëggee rek ma def ko noonu. Ah. billaahi walaay. parce que man dama xool wuli de daa nekk mbër moo xam ne nii ñeme na xeex am na bëre te pànk na. ñemewul kenn du dem États-Unis di indi lee kay daa yëpp ay supporteram lu mu da doon da réglement da doon ambulant foofu da doon jaay ñun xam nañ lépp ah, yow da ngaa dem États-Unis yow yaa ngi Thiès bëgg a xam la xew États-Unis dégg li ma la xanaa xamoo li ma la kee demoon entraîné ñi nga day ambulant nekk fii ba Kirikoro day xam la fa ne mais kii dafa demoon pour entraîner li gën a dee démb licence am la renouvelé demb si mbër nga ni pare nga yow yow kan moo lay jox yooyu écho yëpp waaw yow fii ñun xoolal sant yàlla rek kon yow daa mel ni am na looy may ndax yaa ngi topp waa ji rek de non topp ma ko ndax xam nga ndax lan mbër boo dajee sa morom mbër faa nga topp ko parce que moom daf may topp si yaa ngi dégg di ko xool moom bu baax. kan moo la wax ne démb la la renouveler licence am. jarul wax xam nga la mooy Zouzi. waaw man ak moom si terrain bi la du kenn yàlla suñu borom man ak moom. yéen ñaar képp doole actuellement. barke Serigne Touba su ma ko jàppee mu xam ne doole xale ak doolee mag bokkul. bindee wallaahi. yow wuli da laa mag. déggoo li ma la kan wuli. waaye wuli moo mag fopp man damaa rempe rek yàlla moo wax dinaa egg si fii doomu aadama. moo ah man yàllaa ma jël rek may ma loolu est-ce que yaa man munu maa naw sama bopp parce que yàlla moo ma naw ba pare yàllaa moo may lii man dama koy sant suñu borom est-ce que yaa ngi dégg man damaa nekk euh, taax kaw mag ñeeg ñëpp xale yeeg ñëpp ñëpp laa jox cër est-ce que yaa moo tax ñëpp may aw ma dara leen lu may nekk fii di kiin xaan wala may am lu may ragal est-ce que yaa ngi su ma ko naree ragal ma tekki say sama ngemb ma xam ne damaa ragal jaam yi. ana seex yi. yaa ngi fi. dégg naa yéen bokk suur bu ngeen génte de déggoo li seex yaa fi yéen bokk suur bu ngeen génte yàgguwul li di fi leen ko fekk fi leen koy bàyyi léegi léegi kan la ngénteem di continuer déggoo li ma la yàlla prolongé yàllaa ko xam ah déet ku daan moom war a prolongé déggoo li ma ku daan ku ne def li yàlla wax mais man incha allah dama koy daan ñu ngi nii yu mag yaa ngi nii yu ndaw seex lañ bu baax xoole maa ngi leen di gis kay seex yaa ngi Lamine di sant Modou Xol parce que sëriñ déglu ma dama koy sant ba pare di ko soog a ñaanal xam nga ndax lan xam nga ndax lan booy boobu am na lu majariñ jariñ barki Serigne Touba lu bari moo tax ma ne dama koy sant ba soo soog gërëm ba pare soog koo ñaanal barki sëriñ Touba yàlla na ko yàlla xaaree àjjana kii nii. barki pour cent Thiès bi nag. waaw gisoo yàgg na. déet nii rek est-ce que yàgg est-ce que du daa dégg da ngeen koo defar wala. non defaruñ ko ñun benn lañu. ñu ah. si ginnaaw ñoo xamul ñun mais ñun ñii ñëpp ay doomu ndey lañu. yàgg Modou mi barki Serigne Touba nii lañu mës a mel. sama rakk la. <laughs> billahi wallahi. Modou la kii sama rakk la. kii barki Serigne Saliou Mbacké suma rakk la suma xarit la suma lépp la. di sant xam man message bi may lancé mooy. waa Thiès nañu génn. nit ku ne amoo lu dul sa dëkk amoo lu dul sa mbër kenn ku ne ki nga dëkkal moom nga am nan bàyyi complexe bi te génn may Matar mbay mi ay car ak ay billet supporters yi toujours li fi des moo ëpp liy dem te lool du yoon combat bi combat capital la dañoo war a génn Thiès ñu dem daan ñibbisiwaat lan laay wax bégee dégg nga Modou li mu wax de non wax na ko parce que man ak moom li mu ne pousa xaj na suñu diggante sax mais duñ ko si xaj-xajal barki Serigne Touba parce que bëgguma pour sa dugg suñu diggante ëllëg ñuy am ñangas du ma def parce que seytaan daa bari doole moo tax saay su ne dama koy sa combat bu may jël dama koy woo ni ko Modou lii ak lii loo si xam si ay dégg mënu ma jëlal bii bàyyil bii kon man awma lu may réeroog moom léegi wuli am na looy moytu ci moom lu may moytu ci moom moom laaj waaye wuli daa dansé kan dóor mu daanu mu ngi wax naan dama dóor daf moom mu daanu man mi maa dóor mu daanu. koo dóor mu daanu. barki Serigne Touba sama premier combat dama dóor mu daanu. du set dama koo dóor mu daanu. si yaa ngi ñun. saafi nee na da ko dafa andi sa da ngaa sa grand saafi mu dóor ko mu daanu. saafi loolu fan la loolu ah, moo ko wax de biir reefan. waaye loolu du wax waaye ay saafi la indi fii. saafi ah da ngaa a dem reefan yow. kat man ah. ma mosuma dem reefan. xaw ma sa yoon fu mu ne. ma ma xaw ma sa yoon bi fu mu ne. waaw ah, ah, bàyyi oto bi xanaa amul frein dañoo dagg frein day kon na ah. tey boo tey lii nii est-ce que du ne pression si yow ñoom mu doon laay goote mbëri Cees yëpp daal teew. xam nga ndax lan man du gone si làmb. est-ce ngi dégg su si xamul ñam naa kaani ñam naa akara ñam naa suukar. bu ci dàq. déggoo ma la wax kaani gi moo gën a bon fii laa wax. mais dañuy ñaan yàlla mu sabab lu mu gi mu. dimanche booy ñam. incha allah samedi bu saf sap. lem laa leen di jox lem xama yonent bi lem la bëggoon lem laa leen jox si kàttanu yàlla barki Serigne Touba. léegi ñooy woo ak looy mujj wax sa supporters yi pour non bi pour samedi. waa ñun moom xamuñu ñun xamuñu sax ay dem naan dañuy xeex ak yooyu ñun xamuñu loolu. saa yi dégg damay sant man ñu may sant ñoom laa gën a mën a sant muy borom jagartaay yi dañuy sonn si man guddi ak bëccëg. li ma ñaan si kàttanu yàlla yàlla na leen yàlla may wér ak tan ñu jël seen jagata dawal ko nànk amul sa amul njëkkante amul dara am na nay oto am nay lépp mais man samay booy laa waxal booy jagata yi nga xam ne dañuy sonn si man guddi ak bëccëg seen dëgg ñu dawal nànk dem ma jàpp gan gi defal ko bagage ñu ñibbi si waas yi ngeen raay billaahi di sant nag suñu président écrit muy Sele seen dëgg Sele jàpp na si bu baax maa ngi jàpp si Charles Ciss mu ñaan si si si si mën-mënam si lépp si biir yéeg si lépp li mën ante wax rek booy lii dem mu lii bàyyeeku fii lii nekk fii des fii moo ëpp sax lii dem te loolu ñun bu ñu amul dimbali ay yi dañuy sonn suñu xaalis la ñuy jël di jël ay kaar di ko si def est-ce que yaa ngi dégg loolu dafa métti autorités yi nañu génn ñun ay doomu ay doomu Cees lañu barki Serigne Touba ragal a féete day xañee wërsëg li lay moo di wax dëgg la nañu geesuñu nañu geesu parce que ñun dañoo sonn billaay wallaay dañoo sonn. looy wax looy wax promoteur bi. waaw di sant mbaru Thiès yëpp parce que ñëpp ñëw nañu. sant nañu sant ni ñëpp. di sant ñëpp man moom fu mu nekk nii du ma fu ma cité rek nga xam ne maa ngi lay ku ma ku ma cité wul maa lay sant di la dool di la gërëm di sant Nene Gueye Nene Gueye maa ngi koy sant waaw waa tax kaw Koli yeeg man bàyyiwuma kenn. même waa ku jaajeen lam-lam fandeen bàyyiwuma kenn ba ba bawal ba bawal non non même ma waa jogo sax maa ngi leen di woo parce que ñun ñun ay mbë ay ay xale lañ rek ñëpp ñu bëgg saa ngi dégg même ba Saalum bàyyiwuma leen waa Afia Jolof bàyyiwuma leen promoteur bi loo koy wax Assane Ndiaye Assane dama déggul ma ko wax ba may génn foofu dama ne ko barke Serigne Touba incha allah dama koy daan dama koy daan nga wutal ma combat loolu laa ko wax dama koy daan nga wutalaat ma combat. incha allah kontaan ci yow. Eh,